àdduna amul solo waay tey mu neex suba mu naqare ak sinam ci koor ge waaw musuma koo sant ci ko man damay mel ni ko xam asalaamaaleykum asalaamaaleykum yaa joor soxna joor na nga def maa ngi nii maa ngi si jàmm ci waaye soxna joor

dëgg nag kii xanaa ko mën na ñu ngi ci weeru koor ak nguur gi. damaa wax ba sonn sonn na. ah dëgg dëgg nag ku baax. tey mu neex ah daa def waay. ah na nga def waay. siyaar na. dëgg dëgg bu ma mën a dimbali ci sa affaire bii de. yaa ko yow kese kese kese yaa ko gën mu ñëw mu ñëw ngeen ngeen ñi mel ni ku ku téye pot. ñuy wax kenn xamul. wéy ma. rek a ci koor ge waay. waaye doo doo. ci koor ge waay. ah ana kii. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ah jor, bayi ning jijang. Jijang dulu. Wow, yo ngomong kaki ku bala. Kalau lo nopo top, ha? Yo Ah, mana nama kan dia jadi Ah, sirkris dia kan nama, cuma nama yang kuat ni. Mana mana. Ah, apa lo? Bajor, di yo anak-anak biri. Jam jam jam mulai biar korban lagi gitu. Mana ini dah mana itu hospital. Ah, aku agak kita lagi oleh lulu mana tadi?

yow xàmmee wala nekk xàmmee wala naqari yow ñoo nga nekk ci situation bu ñu dimbalee ndaw si nga yor sëb yi nga yor di di dóor rek at mu nekk benn benn benn xalam gi rek nga ñu jox. waxal waay seen sax waxal waay seen sax di kañ kañ nii rek tax nga ko la. bu ñu yàgg taxal nga ñu waay weeru koor sax. mu baax nga cee tal leneen. dana la jàpp nga yàlla Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon ami. Mon ami, ça va bien Comment vous allez Quelles activités Ça va mon ami Ça va bien Il y a quoi ici Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, oui, man. Orang dia, oui, oui, ay Sénégalais. Mana ñu ay Sénégalais. Waaye dëgg yéen kii kan la? Ah, waxal ak ñun waxi wolof. Non, client yi la. Client yi la. Vous ci pas ah comment. mon ami. comment y a oh désolé. c'est ça c'est c'est y a rien. c'est le problème. on on on on pas de l'argent on n'est pas de On a situation de qui amul dara. nga gis nga ko nii mu ko tuujee nii. waaye kii kii kii mënut a décanté situation bi laa e wax. Euh, euh, déglu déglu tu tu joues très bien. Eh, eh, est-ce que tu connais ce que c'est. dégg dégg wax dégg di ko wutal booy nii. tu es un étranger. oui ah mais li ngay étranger moo tax nga xam ni may joué. Eh. allez ñi toog fii xamuñu li may def lu mu doon. am lan la mu ne lan la. Ah. la nga ne lan la. Oh. kii. du Sénégalais. Hein? du Sénégalais. Qui ah. C'est un Nigérien. Ok. Mon ami, il faut nous aider quelque chose, il faut nous donner quelque chose ici pour commencer ce Il faut nous aider ici. Mm-hmm. Ici, ici on appelle madame, nous avons fille, nous avons hein, c'est Dior. Ah, c'est Dior. Lui, c'est mon, c'est ma, c'est ma qui quoi, c'est ma, c'est ma, c'est ma petite sœur. Ah, ok. Mais il veut, il veut, il veut vendre du riz, mm -hmm. du, du, du, du, pain et du café pour les jeunes qui venaient ici donner de l'argent. Il est de Oui, oui, oui, tout ça, c'est pour le les gens

waaye déglu leen am na noppi déglu leen may nit ñi. ah waaye yow may nit joor joor joor joor joor may nit joor. Ah. man damay ñàkk ndogu yenn saa yi. jàpp eh. ko man. Eh. yéen da ngeen a ñëw fii ma ñàkk kenn. non non ñàkk bu ñu demee déglu leen rek déglu leen rek wóor ngeen wax maa war a ko ma noppi lañu dégg ngeen da ngeen ñëw fii léegi ma ak di ma di ma atta ñàkk kii sama jigéen na mm-hmm. danoo yàgg ma ne moom kii damaa yàgg seen dëgg def naa fa 10 ans dëgg la bi kenn may wax ak moom li ma am xamas kës ñëw ci français mm-hmm. moo ko woon am lii ñu war a def dëgg la dëgg la dëgg la yaa ngi dégg dama ni bay leen jàmm mm-hmm. dégg nga wax baal leen ku ngeen gis rek yaakaar ne moom mënut a dimbali kenn mbir mi néew nit ku jaay jot ka wuy ma wuy ma ah, jaay ko yàpp bu mag yi ngi ya? iya, bu fekke ni man man nako dimbali mu ki mon ami. les mon mu nekk général personne ici. pourquoi nous seuls nous. pour nous seuls. ok nous seuls. ma bi ñu naan ma di sa waay ma di sa waay yow Cheikh Ndomi daal yow yow yow dafa déglu sa waay déglu sa waay. mon ami. oui après je te rappelle ah. ok ok après je te rappelle ah. ok je passe à la maison. je passer à la maison. après je passer à la maison. ok mon ami.

costume man lii xaw ma. c'est des costumes. lii mag ñu ñëpp ñaaw daan sol. lii yow ak na bi la romb daa bëri. la yow a toog sëñ Ba sëñ Ba lii mel lu gëlëm sexoon. ma ne yéen daal lu mel ni kii leen tamit. waaw dimbali na ma yéen xool. xam nga si nga kii tax ñu ne génn baax. waaw man man loolu kii li mu génn war mu dégg làng bi kii tey bu ñu déggul woon bu déggul woon làng bi tey suñu restaurant bu Seejoor bi du dox. oui du am démarrage. xam nga lu mu doon. oui dëxin suuf kànje siyaasa bul bàyyi dara. suba ne ma mat suba rek fii rek. waaw man yaa sama maanaam waaw man yi dëxinu dara. mbàq moom dama ko bëgg. man mbàq gi ma gën a bëgg sax. fajar laa gën a amee naa fajar fajar fajar. man mbàq gi ma gën a la ko mboxulaat. yéen a damaa xam ndaw amul ñun moom ñun moom xam nañu ko abonné ñun abonné nañu. ñun ñun weeru koor suñu ramadan. suñu ramadan 150 jours yi moom. abonné nañu ko. wàññi ko 150 jours 150 jours. yow yow. wàññi wàññi yow suñu ramadan. yow man sama waa ji ak yow tamit ah. damaa ne moom loxo bi la doon. waaw waaw waaw al ma ci junni ba ma dem kër bay ba dem ci waat am xol bu am sax hmm? mi ngi fi mu nekkoon mënoo ma na ma yéen wax ci waaj man yow baax na do ma joxe kii rek yéesi ma ne joor luñ doge suñ ko ana yéen man ko bu metti nii maa ngi koy doog wax rek ne rien wuy ma yow ngay jàng beneen xalam nag yi ñu bëgg a taxal ci seen beneen xalam gi ñu jox ñu am départ tey kon yow joor nar ngaa kaf ba doo ma jox sama sa sama Iya, maam la yeeli maam la jox ñeew ma aussi la ba Iya, dox dem ici ma ba de ba ici man dama dama Iya, mbir ñu ko leen fa ñu faram jàmm ñu faram jàmm Iya, faram jàmm ak salaam waaw waaw man xam na jàmm waaw Iya, leen yàgg ngeen fi de ma ba de ba ici vous Iya, des des des des des des caïmans seulement ah yow ni Iya, may fay ak laay ngay la damaa pare maa ko ma man la ko jug jugo jugo jugo damaa yàq damaa war a dem damay tëj. mais yow mais yow Dior traître nga ah. kan ku may. non traître dëgg nga. ah waay waay yow mais yow traître moo tax nga gàtt sax. sama foofu sax saako bi man dama doon dimbali rek. suba boo fay boo jëndul doo lekk. demee. demee. ok. fii rek demee. ok ok. suba fii rek. ok. laay laxle la kontaan dafa la gisuma la mbaaw suba fii rek toj seen yoon maanaam